ko jaay jaay ko ñu la neex dafa ñaaw rawatina ci fi ñu ko defee démb Touba parce que même <coughs> bu ma adduna bi yëpp màggee màbb di dem Touba ñuy commémorer bisu bi fi sëriñ mag bi jógee ay nit yoo xam ne dañoo dëkk Touba di dem ba ñemee jaaye saaku soble cinquante mille francs c'est inacceptable effectivement il paraît que am na ñu ci jàpp ba jaay li ñu yoroon. waaye jàpp naa ne waru ñoo yem foofu Touba am na boroom ñi def loolu dañ leen war a identifier ñoom ñëpp génne leen Touba parce que amuñu fa place ndax Touba ba ko sëñ Touba di sanc dëkk bu yërmande la ko bëgg a def koo xam ne ne dama faa ñëw pour di lor nit ñi loolu c'est inacceptable et puis li gën a garaaw avant lii bi Auchan bëggee installé wutoon ngeen baal ma ci publicité bi ah. Mm-hmm. ay commerçant ñoo jóg mobilisé wu yàq ko. Mm-hmm. bi ci des lii moo gën a tuuti ci li commerçant di def tubaab ci lu bon. 400 pharmacie ña nga fay jaay garab te waruñoo jaay 400 ñeenti téeméeri pharmacie di lor nit ñi. 90 pour cent woto yee fay da amuñu këyit amuñu assurance amuñu visite technique amuñu carte grise xam nga état bu rusee Touba ba am ñu bari ñu bàyyi ko fa mu yam waa Touba war a rus waa Touba wala ñu rus sëñ Touba ce qui s'est passé là-bas hier que soble cinquante mille francs te ñoom xam nañu jënd wuñ ko sax huit mille francs ñooñu waratu ñoo fanaan Touba. Mhm. gis nga say blaat bi nga xamee ne ay nit dañ faa nekkoon di def yu bon ci Touba di jaay sàngara yu mel noonu. mu indi fay xaj ñu naan ko Touba lu tax nga di fi xaj mu ne seen morom la ñuy seet ñee dañ ñu génne leen Touba parce que du seen place. ce qui s'est passé hier c'est inacceptable. ne ña nga fa waaye man wóor na man duñu murit parce que murit du so du soxor murit du lor moromam te liñ def démb kenn mosu ko am na ñoo xam dañoo xëy wër wata dugg seen wata di wër Touba ba génn dem Mbàkke di fa jëndi soble. cest à nit ñi sañ nañoo bëgg soble man personnellement soble du sama problème. Mhm. waaye nit ñi sañ nañ ko bëgg. Mhm. c'est-à-dire nit moo waru sañ-sañ parce que day def commerce pour di ci lor nit ñi. Mhm. li ba nga wax dëgg la su fekkente ne noonu la war a demee si nañ ubbi marché bi lu waaye am indi bu ko defee Sénégal yi bañ a loru. et malheureusement lu ñu jox commerçant yi bu bu ñu amee monopole rek la loru Sénégalais yi. gis nga moom boo xoolee koor gi ren su kër su kër ajuwut Auchan am na ci sëñ bi la nag sëñ wax loolu feeñ na démb nee na yi seen xol yi dafa dee état bi nag moo ko war a dekkal ku fi def lu dul yoon ñu tàggale la commerce Touba nag ñëw tëddee réglé waaye waa Touba ñoo moom Touba muy sëñ Mountakha ak ña ña seq ku fay def lu mel noonu dañ laa war a génne Touba parce que dëkk. Hmm. ce qui sont fait c'est inacceptable. waaw. Euh,